la alaikum, Andy Veil, Ismail spécialement et son équipe. Alhamdulillah, on est à Kerkhali, donc euh, pour ce puits Alem Farid qui a commencé depuis quelques semaines et qui est à une profondeur de bientôt 5 mètres. Cette zone-là, c'est une zone très très pluvieuse, ce qui fait qu'on ne peut pas travailler au rythme qu'on veut, ce qui fait que ça ralentit un petit peu. Et là, comme les pluies vont commencer à baisser, on va accélérer le rythme pour, Inch'Allah, bientôt atteindre la nappe qui peut-être sera à quelques dizaines de mètres, on va dire entre 10 et 12. Inch'Allah, d'ici 2-3 semaines de travail, on croit que, on pense que ce sera fini. di sant yàlla bu baax a baax teen bi nag ñaan neen ko si ay conditions ndax boo xoolee daanaka village baa ngi nii boo xoolee diggante distance bi ba si kër yële si koñ ba moo fi am teen amoon na beneen teen boo xamante ni si ancien teen yi loon waaye dafa mujj yàqu teen bi moo si des loolu moo sababoon si ñaan ko li ko gën a waral li nag mooy ñu ñaanee ko si projet bi ndax maa ngi doon jàngalee dëkk ba la ñu wax kër Mor Diaw mayoon neen ma fi defoon neen fa teen boo xam ne ñu ngi ko defoon si école ba sabab bobu na motax ma am fit am yakar ne xaaral man timit ma duggal suma demande si tenbi, bi. ñu koy sante yalla bu baaxa baax ndax ñaan yombu na way pour ñu may la mo jafé lool dal moy sabab bi li nga xamanteni ñak ndox dal ndax bu robinet yu coupé dañuy am jafé jafé bu baaxa bah baax a ba léegi ni robinet bi nga xamanteni sa daanaka ci la nek robinet privé la tay man nay am ndox suba du am ndox lool moo sabab ñu ñaan teen bi waaw du dara ndax bo sété kër yi ni yeb wër ko ni tay fu mu ni bu robinet coupé wara dañuy am jafé jafé ndox. kon dañuy sant yàlla bi ñu ñaanee ñu may ñi dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw ñi ko financé ñu ngi leen a ñaanal euh, tiyaabo jooj euh, yàlla na leen fekk ji fu mën a ne muy si àdduna ak ak si àllaaxira ñu ngi leen a ñaanal ñoom bu baax a baax a baax yàlla yokku seen fan yàlla may leen kàttan yàlla gën leen see dëgëral teen bi nag moom ñàkk ndox gi la ndëkk na dëkk bi daanaka amul teen benn robinet moo fi ne amul teen benn ñaari teen la amul benn yu yàqoto loolu daal mooy mo wara ñaan teen bi daal bu bari loolu kese la daal ñuy ñaan na yàlla defal leen jàmm salaam yokk seen fan. kay ndax robinet bu coupé teen bi fële la nekk teen bi daa sori dañuy xaw a sori nag waaw dañuy dem uti foofu ndox te teen bi da dara nga ci sax waaye léegi nag moom mu commencé am ndox waaw léegi nag moom ñu bëri xàcc na robinet yi seen kër yi waaw. waaw da ngay fay kay ngay fay xaalis waaw ngay fay kay. Ce puis donc Alim Farid un des puits de Andivey, qu'on connaît très bien, une association qu'on accueille ici avec plaisir. Ce puis donc Al Farid, un des puits de Andivey, qu'on connaît très bien, une association qu'on accueille ici avec plaisir. On aime bien travailler avec cette association, en tout cas sachez que vous avez en Ismaël, quelqu'un de, de confiant, quelqu'un de confiance et quelqu'un de très très persévérant qui fait le terrain tout le temps avec nous et alhamdulillah donc on a pu réaliser de, très belles choses avec eux et on espère continuer à faire ça et Inch'Allah on reviendra donc pour l'inauguration de ce puits Alem Farid euh, d'ici quelques semaines Inch'Allah.